ginnaaw bañ leen nuyoo rafetlu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey seen acte koy daal di doore ak photo Sadio Mané bi nga xamante ni daal dinay def le tour des réseaux sociaux loolu nag gannaaw photo traditionnelle bi nga xamante ne ñii di Bayern dañ koy amal at mu jot loolu nag bokk na ci présenté seen ay sponsor mu bokk ci sax bière polonais bi nga xamante ni sax mën nañ jàpp ne jour yëpp daal dinañuy gàddu rek ab verre jëm rek ci daal di promouvoir bière bi nga xamante ni sax bokk na ci seeni sponsor waaye nag mu mel ni ah, kii di ah, Sadio Mané doomu Sénégal bi ah, fier ci ay conviction am ak ay croyance am daal dinay rek refuser ni mel ba nga xamante ni daal di gàddu bi les bières ak ngir daal di def promotion bi rek moom Sadio Mané nag daal di gëm li mu gëm yorul dara ca loxo ba daal di rek ànd ak gëm-gëm ak sax croyance yi nga xamante ni daanaka na nañu wax ne diine moom moo ko daal di may ba a sax moom bokkul ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di gàddu li ni mel photo boobu nag daal di def le tour des réseaux sociaux waaye tamit daal di nekk loo xamante ni ñëpp bi ñu gisee photo bi daal di nañ ci kontaan lool ci ni nga xamante ni sax noonu la Sadio Mané daal di comporté woo rek. ci photo traditionnelle boobu nga xamante ni sax ñii di Bayern de Munich ñoom ñoo ko daal di amal. wax ci coowal héritage famille Dia lool nag gannaaw ba nga xamante ni coow daal dina ci am ki nga xamante ni sax mën nañ jàpp ne ah, soxna la ci kii nga xamante ne moom moo di Serigne Mor Dia ndem si yàlla si ah, moom nag gannaaw ba xamante ni sax yëkkati woon na ay kaddu rek ah, ñu daal di koy duppee sax diffamation gannaaw ba nga xamante ni sax kii di Moustapha Dia daal dinay rek gën woon ab plainte jébbal ko ko moom nag veuve Serigne Mor Dia Cissé signé rek taxaw fa nga xamanteni fa la dal di taxaw lol nak jëm rek ci ciowal héritage bi nga xamanteni amna sax ci famille ja gannaaw ba xamanteni ki di Serigne mordia dal daal dinay génn aduna wax ci audio Mbathio ndjay bi nga xamanteni dal daal dinay fuite loolu nag gannaaw ba xamanteni ki di Soufia daal dinay rek feussal li ni mel di wax sax ndjay dal daal dinay rek ëmb lu toll ci juróom ñaari yoon waye nak daf ko mujjé a yàq mu doon ay révélation yu doy yo xamante ni Sofia daal dina koy def mu nekk ab audio boo xamante ni sax daal dinay fuite rek moom nag yekk na Mbathio Ndiaye lu mel ni xeme amul lu mu ko deselul dem sax ba def fa les révélations yu doy waar yoo xamante ni daal dinay wax sax ne Mbathio daal dinay avorté sept fois rek gannaaw ba nga xamante ni sax dafa daal di ëmboon mu nekk loo xamante ni dafa daal di doy waar nekk audio bu fuite tukkee ci kii di Sofia kii di Californie nak mu melni sax Macky Sall eh, daf ko daal di teg gannaaw ba xamanteni sax eh, mom ba mu nekké fofu ca diwanu Paris eh, daldi nay yak turumi réew mi lu melni ni xeme bàyyi yon benn ak i ministre am saaga leen ba ñu tooy xepp waaye nag bo vidéo sax mom ba jitu réew mi ñëwee ca diwanu Paris mom Californie nak amal na snap ak mom jéggalu ci saga yoyu mu melni nak nag dafa génnaat ba set wicc ci loolu nga xamanteni sax nekkon ay kàddu ñaaw yoo xamante ni na ko di ko ci deru jitu réew mi e mel ni sax ah, jàmm daal dinay dikkaat waaye nag kii di njiitu réew mi mu mel ni sax ah, daf ko daal di ootal rek wax ko ah, na ñëw Sénégal campagneal ko tax sax ba californe yàq ñooñu Ousmane Sonko lu mel ni xeme ñëwoon na fii ci Sénégal waaye nag mu mel ni delloom foofu ci Europe du yomb ndax kat dañ ko daal di diggoon sax passeport diplomatique loolu nag tikko woon ci kii di njiitu réew mi waaye nag dafa mel ni moom californe nag dañ ko daal di refoulé ndax kat gannaaw ab laay boo xamante ni sax mu ngi ko doon def ak kii di Chocono stress mom California nag xam nga yëkëte ay cadre rek di wax sax naan nañ ko dimbali même bu fekkee mënul wat Paris sax réewum Angleterre yi mën na faa wat waye nak ki di Choco nekk gaañanam di ko wax sax naan ko dafa daal di nelaw ci diil bi rek gannaaw ba nga xamanteni otal nañ ko ba mu di Sénégal rek ñu daal di koy tere wat fofu ci Europe lool nak nek lo xamanteni sax danaka mën nañ japp ne ki di njiitu réew mi dafa daal di e tek rek ki di ya Californie di ya Gabrielle kan nek ya féministe ku ñu ràññee lool ci di xéxal jigen ñi moom nag gannaaw ba nga xamante ni am na app waay sax boo xamante ni daal dinay génn rek di wax sax kàddu yi nga xamante ni moom Gabriel Kane dool na ko doon yëkkati rek di ko teg ci ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy ñooñu Ousmane Sonko waay nag mu mel ni waa ji nag gannaaw ba mu génnee rek daal dinay vilipender rek kii di Gabriel Kane di ko wax sax naan ko yow da nga doon futteeku ba set wicc ñu lay photo di la fay te mënoo weddi li ni mel ndax yow yaa toog ci télé daal di koy wax loolu nag nekk ay révélation yoo xamante ni doy na waar lool nga xamante ni sax ab waaye moom moo ko daal di génn rek te dal ci kaw Gabriel Kane wax ko lu mel ni xeme ci euh, rek na nga xamante ni noonu la doon amee xaalis futteeku euh, ñu daal di koy photo euh, fay ko xaalis loolu nag nekk ay révélation yu doy waar yoo xamante ni moom daal dinay génn rek def ko ci Gabriel Kane kii di ba no stress toujours meilleur ci wàllum comédie gannaaw ba nga xamante ni sax daal dinay ànd ak doomam bu jigéen ak ñi nga xamante ne moom moo di doomu Wally Balago Seck ànd ak ñoom di rek def promenade waaye nag gannaaw ba nga xamante ni moom mu ngay tooñ rek doomu Wally Ballago Seck di wax naan seen baay moom ëpp xaalis loolu nag nekk ay comédie yoo xamante ni moom Aba di dëkkee rek di ko def ci ñi nga xamante ni sax moom moo di ak i ñooñam ku ne xam na diggante Aba ak ki nga xamante ne moom moo di Wally Ballago Seck waaye nag sortie boobu nga xamante ni jot na ko def ak doomam yi ak doomu Wally Ballago Seck moom nag mu ngi wax naan xale yi daal dinañ koy dépensé loo xaalisam bi yëpp te xamuñ ne sax ne seen baay Wally Ballago Seck moom moo ko daal di ëpp xaalis Tati so nek influenceuse bu ñëpp rañé fi ci Sénégal dal dina dinay affiché war rek gannaaw ba nga xamanteni ni ah, gëjoon nañ ko gis lool ci réseaux sociaux yi moom la gis noonu ak photo yu yes yi nga xamanteni ah, dal dina koy publier waye ñu wax ci keneen muy chanteuse bi di Amirat Abet ah, gannaaw ba nga xamanteni sax dal dinañ koy gis rek cap photo bu yes sax bo xamanteni dal dina koy publier mu ci and nak ku góor on sait pas si un membre de sa famille wala sax ko xamanteni sax copain am la en tout cas

une très belle chanteuse Mom Abiba kii di eh, Dipp Doundou Guiss gannaaw eh, mu janook eh, Pape Sidi Fall moom nag daal dinay fësal rek lu bëri jëm nag ci carrière ak sax yenn yoo xamante ni daal na koy nemmeeku rek ci hip hop yi loolu nag jëm ci ay clash yoo xamante ni sax daal nañ koy gis nag moom Dipp lam ca wax leer na muy fësal sax ci kanamu Pape Sidi Fall naan ko nag am na ñu bëri ñoo xamante ni sax nekk ñu rappeur waaye waruñu ko woon doon loolu nag jëm ci incompétence boo xamante ni sax moom mu ngi koy qualifier rek rek ci ñenn ñoo xamante ni ils se disent rappeurs te nekkuñu ko kii di Nabou Dash ak sortie yi nga xamante ni mu ngi koy def jamono ji loolu nag daal di choqué internautes bu baax a baax ak sax révélation yi nga xamante ni moom mu ngi ko ci def waaye nag kii di Ami Collé nekk artiste daal di nay rek génn wax ci li ni mel mu mel ni sax moom dafa daal di am surprise lool ci comportement ki nga xamante ni moom moo di Nabou Dash ndax kat dafa ràññee live yi nga xamante ni Nabou ngi ko doon amal a doonu ci woon saaga doonu ci woon wax lu ñaaw know waaye nag eh, léegi sortie yi nga xamante ni eh, kii di Nabou mu ngi koy amal elle ne sort que de gros loolu nag nekk loo xamante ni eh, surprise la ci Ami Collé moom nag mu daal di am lu ko bett loola waral sax muy wax naan est-ce que Nabou mu ngi ànd ak xelam. kii di délégué ama daal di nay génn moom nag daal di vilipande rek kii di Mandiaye Seck loolu nag jëm rek ci yenn ci ay audio yoo xamante ni sax daal di na koy fësal muy wax sax naan kii di Mandiaye Seck dafa daan jaay rek numéro Wally Balago Seck mu mel ni nag am na ñu bëri ñoo xamante ni a jot na jëflanteeg ak ñoom waaye pour mu jox leen numéro Wally Balago Seck daf leen di laaj rek transfert Orange Money ngir mu daal leen rek jébbal bi le numéro moom nag gannaaw audio mu teg am na sax ab waay buy def ay révélation di wax sax naan jot na dund mel ba ñu daal di koy jox sax numéro bu bon te kenn amalu ko ku dul kii di Mandiaye Seck nekk cousin ci Wally Balago Seck a Amar mu daal di génn ay preuve teg ay ojo ca ngénte ba mu mel ni nag artistes yu bëri wuyu si woon nañ ko notamment Badiane ak kii di Adja Fall waaye nag ñoom ñaar ñu ngay disputer rek ci loo xamante ni sax d'accord ñu ci euh, sen gis-gis mu daal di jëm sax a ci femme bi nga xamante ni sax moom la ñu daal di takkaloon wujj rek muy tojate li nga xamante ni moom moo di vitre kër ga waaye nag gannaaw ba nga xamante ni kii di Badiane àndul ci li ni mel Adja nag moom daal maanaam xamna xale bu jigen bu bu baakha baakha ah, lol nak du jikom ah, ndax kat ah, ba mu dara nekulé dara ci la nekkon nak jëkkër ji kon nak réaction bobu non mu def bu ko ci kenn jugé way nak mu melni ni andul ci li mel ndax kat dafa japp ne ak lu mënti xew rek c'est pas une raison muy toj rek vitri ñom ñaar nak ci dispute lañu mujjé ndax dal di wute gis-gis ci ngenté bobu lañu ya des batay gannaaw ba xamanteni sax sumbulu ci li téwona sax teranga yamu jébbal ki di daro mu melni nak nag en revanche kii di Daaro nag dafa daal di teralaat kii di Soumboulou lool nag bokk na ci yëkkati valise wu yére daal di koy jox rek a Soumboulou ngir doomam jooju di Maam Jaara Mbayang Diop moom mooy soxna si accouché woon ba noppi daal di jël bébé bi sànni ko ci alentour stade bu Sandiara mu mel ni nag yoon daal dina koy teg loxo gannaaw ba nga xamante ni xamuñu woon ku def li ni mel waaye nag dal dinañ koy mujjee identifié Mbayang Diop lay match ba noppi rek ah, bébé bi ah, ci alentour ah, stade bu Sandiara waaye nag daal dinañ koy mujjee identifié ba teg ko loxo kii di Boucher daal dinay fësal rek cachet bi nga xamante ni moo géet daal dina ko koy joxoon sax loolu jëm ci ak Mbaye gannaaw ba parcelle ak 100% pour ñu ngi doon amal ap match de football ci la daal di def yi les révélations di wax sax ne moo géet joxoon lu ci 37 millions Gana Gueye à Everton c'est officiel mu mel ni accord amna ci Paris Saint-Germain ak Everton moom gan mercredi nak mercato ba danaka dem na Everton signature ba nak dina wéy ba atum 2024 mbokk yi ñu di leen leen du jour di leen ñaanal jamm di wax ngeen abonné suñu chaîne bi à la notification bañ raté dara suñu information jërë